ngeen déglu asalaamu aleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi nuyu sëriñ bi di la ñaanal yàlla yal na yàlla bàyyi la fi ba sa kanama kanama kanama kanama te nag yàlla tafal si ak wér sëriñ bi ñiifi teew mooy ñi nga xam ne ñooy yëngatu si woto muy ñiy dawal woto yi ak ñi ko moom ma ñii ñooy ñiy dawal oto yi waaye ñooy ñi moom oto yi waaye mooy ñi nga xamante ni ñooy jaay pneu yi ñi nga xam ni ñooy jaay pièces détachées yi ñooñu ñoo daje li daga fongali mi ba fii benn responsable desul Mbàkke nag fii nga toog ku ne dina la fi fekk Mbàkke waaye yàlla dogal na xàmmee nga ñëpp kon wax ji du woon ko jaral duñ ko waaye nag lu ñu lay xamal ni ay ay taalibe donc ñoo fi ñëw te bëgg a doon nag ay saadix nuy ñoo xamante ni dañuy góorgóorlu te doole yi bariwul te yàlla dogal buur ay dooleem bari ak i pexem ñu xëy xëy nag teg nu loo xam ni attanuñu ko ndax ñaar fukki point ak ñeent yu ñu teg mbàkke ku dindi woon ayib yu toll noonu ci Alassane Ndoye jëmma dootu fa des te loolu nag bu ñu demee ba koy teg ñoo xam ne yaag ñoom yéen a bokk ab liggéey dafay laaj nga woo waxtaan ak ñoom lii nga xam ni moo xew barki démb nag loolu dafa am loo xam ni xëj na si nun la waaye am na ci loo xam ne si ñoom la mbir nag bu xewee kenn ku nekk am loo si am responsabilité da ngeen di bokk daje kenn ku nekk la nga say def te bokkul sa loo war a def nga bàyyi ñoom nag dañoo jël lépp teg nu bu ko defee nag su yekkee ni loola ñu teg waxtaan na nañu waxtaan mënula sotti ab syndicaliste lay dooleem mooy mu téye ab liggéeyam ba ñu xam ni am na njariñ ci dëkk ba bi ñu ko defee nag ñoom wax nañu ni loolu ñuy def teguñu ko ci aw yoon te fekk booba ñoom la ñuy def moom la ñu tegul ci aw yoon booba ba léegi nag ñu ngi waxtaan ak ñoom waaye nit su la nee teg naa la ñaar fukki point nga ni ko naan daje waxtaan danga ko naan lii ak lii ak lii mën naa ko teggi mun na lii ak lii boo ko teggee nu déggoo waaye ñaar fukki point ak ñeent yi leen teg dara mënu nu dañ loolu boo ko dee def nit ak waxtaan boo mooy du ngeen déggoo Mbàkke nag ñu jub màggal ñoom ñoo ñu nga xamante ni bii ñoo ñu ko teg bii ba min wi nu ngi toog ak ñoom nu li leen màggal gi day jub te nun ñii ñëpp kenn ku ne war nga faa dem war na ñoo bàyyi nit ñi ñu ñu dem kon bàyyi leen dara nu bàyyi dara nu déggoo ñu ni ñu ni virgule lu ñu ko teggi ci lu leen teg loolu nag Mbàkke kon ñu ni nañu ñëw wax la ko yow mi nga xam ni nag képp kuy wut dara yaakaar na ci sam dimbal li ñu teg metti na yàlla jox na leen karta nag waaye delloowuñu yàlla njukkal ndax toll nay jamono ñoom ñu ni ko teg ëpp ñu nu woon kartan waaye dañoo dajale suñu dool jox leen ba ñu am kartan bëgg nu koo jëfe suñu kaw Mbàkke nag ñu ñëw pour wax la nga wax ak ñi nu ko teg ba sëludu yooyu giir du dem ak Mbàkke toogaay bi yàgg na waaye nun ay donga la ñu doon yoo xam ne duñu fi yàq kenn ndax ñëpp noo bokk yem waaye ñëpp noo bokk yem ci yow ñu wax ni nag ku ne dina la fi fekk waaye nun daal ay taalibe lanu bëgg a doon bëgg nañu nag li ñu nu teg bala ñuy delluwaat si lu mel nii nu siy déglu sa ndigal loolu si sant nag loolu la ñuy def Mbàkke maa ngi leen di ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant Sénégal nag a ngi nii Sénégal a ngi nii kenn desul ndax bu ñu nee oto porte bagage dootu ci tegu ak Sénégal ni ñu xamee seen culture kuy tukki di nga am loo yor waaw kuy tukki te amoo amoo yor dara porte bagage amul foo koy teg bu ñu nee oto dootu daw guddi te guddi nit ku nekk ak soxlaam ak fu mu toll ñu ni oto dootu daw guddi loolu fu ñu koy teg gasoil benn litre bu nekk ñu teg ci ñaar fukki dërëm te ñu nuy commerce fu ñu koy fu fu ñu jëm loolu moo tax ñu ni nag yow teg-teg yooyu bari na te attanuñu ko teg-teg yooyu nag ñu nu teg lañu lay ñaan mbàkke ñun bala ñu si jéemati dara nga dimbali nu si teg-teg yooyu ñu tege ko nit ñi mënuñoo bañ a dem guddi oto mënu la bañ am porte bagage gasoil wi seer na yu nag teg-teg yu ban ñaar fukki mën naa la koy limal ñaar fukki point ak ñaar yu mel noonu benn nit buy liggéey di góorgóorlu attana ko kon mbàkke ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu Macky Sall mi nga xam te ni bii moom moo yilif ñu nu ko teg te ñii nu ko teg nag ay gone yu tuuti lañ joo xam te ni bii suñu kanam lañ juddoo te daanaka mën naa laa wax ni ni ñu ko defee lépp dara tegu si aw yoon nag te xam nañ ci lu bëree bari waaye ñun bëgguñu fee ñëw di yàq kenn parce que boo demee tey jii ayib bu ñu wax si ñoom mu ngi si ñun waaye moo tax itam ku ci wax ayib si ñun lu mel ni li su ñun mu ngi si yow kon Mbàkke ñu ngi lay jébbal mbir mi kàddu gi nga dimbali ñu te yàlla tax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm asalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Aliou sëriñ Alsaan Ndoye sëriñ bi dégg na kàddu yu baax te teewlu na ko it te kàddu yi li nga wax lépp dégg na ko di wax ne mu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin mi ngi leen delloo am nuyoo yéen ñëpp comme ni nga ko waxee ci biir wax ji njaboot gépp ak njabootam lañ kon lépp loo xam ne yittey njaboot gi la mu jëm ci rawatina lu jëm ci wàllu réew mi moom mii lépp loo xam ne mën na ko ci dina ko def incha allah rabbi la ca jiitu mooy ñaan te ñaan mën naa defar lépp kon na seen xel daal bu baax a baax la ca topp mooy lim bëgg ba di ko digle mooy coowlawul kenn yàquloowul kenn na ngeen na ngeen fexe ba tege ci aw yoon lépp loo xam ne war na ko ci diggante ak état muy loo xam ndimbal la lu jëm ci réew mi incha allah rabbi dana ci jug taxaw ci ba lépp am jàmm incha allah rabbi kon moom jàmm rek la soxla jàmm rek lay ut kon na ngeen dal seen xel lépp loo xam ne mën na ko rek incha allah ci kàttanu yàlla dana ko def te loolu rek moo yitteem kon na ngeen dal seen xel sant na leen nag. na ngeen xam ne loolu yëpp. defar rek moo ko waral te moom mii defar rek moom mooy li ko fi bàyyi waaw kon na ngeen xam na ngeen xam loolu defar rek moo ñu fi ni waaye defar mooy ki nga xam ne moo fi bàyyi sëriñ Serigne sëriñ Serigne Mountakha mii ku ko xam ci defar rek nga ko xam ku ko xam ci lu baax rek nga ko xam ki ko xam ci boole ay jaami yàlla rek ci lu baax moom rek nga ko xam kon na ngeen dala seen xel. mu ne kàddu dégg na ko lépp loo xam ne. muy coonal ak lu mën a doon lu agsi ci moom incha allah lépp lu mu ci mën ci kàttanu yàlla des des na jóg taxaw ci ba jàmm am ci incha allah rabbi rafet mi ngi rafetlu nag seen taxawaay ak seen jéego yi ngeen def ba agsi ñëw fii ci kanamam dooni ay taalibi sañ cuba di sàkku ci moom ndigal ak ñaan kon mi ngi leen di ñaanal suñ borom kàttanal leen may leen ak wér ba ngeen gën a mën a sax ci liggéey sëñ Tuubaa bi kon na ñëpp tàll seen loxo bisimilah. bisimilah. أدار يا الله سعي بقاء بي بفيق يا الله